ñii di wax est-ce que xam ngeen kan mooy Betty je pense que non kaay leen ma wax leen kan mooy Betty parce que yéen ñiy critiquer jëkkër ji booba ba léegi naan góor kay lépp lu mu la wax jarul nga koy dóoree sa doom góor kay waxu góor jarul dóoree sa doom man kay maa bàyyi góor aawo yi pare leen képp kuñ ci dig ne duñu la takkal wujju nana nii nana na patati patata dem leen ngeen informé ci ba xam kan mooy Betty yéen Betty mii ngeen di wax naan waa ji dafa accepté. waa ji kii ngeen naan dafa accepté waxoon na ne du takk deuxième femme waaye takkal na Betty yéen Betty kan lay wax waaw kan ci kaw suuf la Betty di wax waaw yéen xam ngeen Betty xool leen Betty bakkanu Betty ay bëtu bëtu Betty gémmiñu Betty kanamu Betty maanaam ci femme africaine mu wax la waaw comme ci waxoon waaw sa jëkkër nga am mucc bu leen ñu fontoo man Betty bu ma waxoon waaw sama tukki gu yàgg gi yëpp ma ñibbi fii ku fi Betty wax waaw nga takk luy problème bi. yéen est-ce que informé u ngeen bu baax yéen xam ngeen lan mooy taar président